ay bu neexee bu neexul ku mu neex ak ku mu neexul ma jéggalu yàlla na ñeex ñëpp yàlla na ci ñëpp bëgg mais Espagne moo yor football euh, bi nga xam ne moo nekk ci dénduk Europe comme ni ko senegal yore woon ba yor ko tey jii sax ndax yaakaar naa ni trophée yi Sénégal jël yëpp fii may wax ak amul benn trophée bu fi dellusiwaat ñu koy football keneen jël ko Sénégal mooy buur Afrique waaye Espagne nag wax dëgg yàlla ci kaw ba ci suuf ci gone yeeg jigéen ñeeg footballu jigéen ñi lépp ñoo jël Afrique wala ñoo jël Europe ni ko dënxum téye loolu am solo bu baax a baax ci match bi nga xam ne France doon na ko football ak équipe bi la nga xam ne moo nekk Espagne France nag ay jàmbaar lañu yu góorgóorlu bu baax a baax na waaye dafa mel ni maanaam équipe bi euh, Espagne indi foofee uniquement dafa bëggoon a toroxal kii di Thierry Henry donte ci biir match bi gis nañ ni dinañ ci dikk léegi euh, bit ya nga xam ne dugal nañ ko ko waaye damay jëkk ci mbégte mi nga xam ne supporters yi Aladji Malick Sarr ak ñi mu àndal ak ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal di ay Barcelone ak i merengue ndax ñoom ñoo ci gagné ndax yaakaar naa ni équipe bu Espagne boobee ñu ko composé ay Barcelone ak i Real Madrid ak ay Getafe ak ay baykati tamaate ñoom ñëpp ci biir waaye nag Lamine Yamal ak ki li nga xam ne moo nekk Fermín López gars yi kenn ku ci man di doon lu yàggul coppati nga ab trophée andil ko sa dëkk mu nekk ngëneel ci Lamine Yamal mi ko njëkk def waaye mu nekk ngëneel ci kii di Fermin mi ko mujj def moom nag moo man Lamine Yamal bu dëgg dee dëgg ci li nga xam ne mooy bu ñu jëlee compétition par compétition ndax la mu dugal ci ay bit lak la mu def Yamal defu ko ndax bu ñu xoolee match bii rek moom mii di Fermin dugal na ñaari bit benn bi mi ngi ko dugal a fukki minute ak juróom-ñaar beneen bi mu dugal ko bu ni footballee lu toll ci ñaar fukki minute ak juróom-ñaar wala boog ñaar fukki minute ak ñeent ñetti minute ginnaaw bi la ki nga xam ne mooy Alex euh, Banena moom it euh, wala bayee naa nu ngeen ko waxee baax na la dugal bit boo xam ne moo euh, nekk troisième bit bi nekk nag loo xam ne lu ama am solo la a euh, ci boobee victoire ndax boobee fekk na Espagne ma ne ñetti bal ci benn ndax kilo di Milo moo njëkk a dugal ci fukki minute ci lii di équipe nationale bu France Ah, bi nga xam ne gone yooyu manqué nañ ñaar fukki at waaye nag France fexe na ba fayu ko ca match boobee waaye nag ban ci jógee nag compétition bi am solo bu baax a baax ñu dugg ah, ci organisation bi ak équipe bii di équipe bu France wax dëgg yàlla grand merci à eux ndax loole la képp koo xam ne yaa ngi doomu français def tey jii bi match bi jeexee donte am na lu leen naqari waaye nag jël nañ li leen naqari leen neex boole xam leen ni am na nañu mbégte ci équipe bi nga xam ne kii di Thierry Henry di international français tey di excentré bu Moussa Ay nekkoon ca Arsenal loole doon am lu solo baax a baax nekk tamit ku jaar-jaaram am solo ah, ci équipe nationale li leen di France kon tey jii mbégte lay doon ci moom nekk mbégte ci képp koo xam ne yaa ngi bal France donte perte nañ li leen di seenu victoire waaye loole dañ koo boole dëxëñ ko daal di jël métti bi teg ko fële jël cofeel gi nga xam ne am nañ ko ci seen entraîneur bi nga xam ne li mu dese ci kanam mu ëpp li mu wane ginnaaw kon ne leen ko ñaanal ñaanal li nga xam ne mooy football espagnol tamit bi nga xam ne mu ngi dox ay jéego yu ama am solo jéego yooyu mët sëkk kenn comme ci man di doon man cee jariñu